أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان وبالهدى إلى يوم الدين ورد الله خالد عن شيخ الشيوخ برزق البرازق تاج العارفين ومن كل أولياء الرحمن العباسي أحمد بن محمد السالم بن التجان وعلى آله وأصحابه وخلفائه ومن نهج نهجه وسلك طريقه الخوين إلى يوم الدين ورضا الله الخالق عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا المجاهد الأكبر والولي الشهير مولانا الشيخ أبو حاج عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأنا به آمين إيه، تبارك الله كما من سنتي يا مسلم البرام Thank you. وسيد الوجود وعالم الشهود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا يا كل يا اي درات يا المقام كي خمني موسم وسيله سيدي بنت النبي صلى الله عليه وسلم لمولانا السيد الشيخ احمد التجار الشريف رضي الله تعالى عنه اموال خلفاؤني اموال مخدمني اموال ملخمي اي سبتم نعم لي يا رسول الله سبحانه وتعالى يا يعني dolli wéral dolli guddal fanu suñu xula xalifa yu tedd yi jiite ci xalifa bu tedd bi ñuy séenu ci barab bu tedd bii di sëriñ ba di sëriñ di Cerno Mouhamadul Bachiru Taal ak mbokkam mu tedd mu sell ma di sëriñ Babacar Si Mansour jàng yàlla may dem wér ak kattan ak fan may ñu ko may ko mbooloo ñu jullit waaye yàlla na ko yàlla may bépp xalifa bu nekk ci kaw suuf ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi nuyu mbooleem kilifa yi fi teew yépp kenn ku nekk ñu ngi lay nuyu ci sa tur ak ci sa sant ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen di baalu xaq ñu ngi leen di baal ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla boo leen jéggal nuyoo yi ñu nuyoo ak ziyaar yi ñu ngi ciy jiital kilifa jataay bi suñu ne kilifa jataay bi mooy Thierno Mouhamadul Bachiru Taal di xalifa maam Cheikh Alxaaji Omar Foutiyu radiallahu taala anhu ñu ngi koy jiital ci nuyoo bi di ko nuyu di ko ziyaara ziyaaratul istimdaadi waaye di ko ziyaar ziyaaratu taalluq te di ko ñaanal yàlla yàlla fi yàlla yàggal yàgg gi ànd ak wér ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam gannaaw bi ñu ko nuyoo ko ñu ngi nuyu njabootam yëpp jiital ci Thierno Hamidou Yero mi nga ni tey jii moom moo waral jataay bu tedd bi ci ngoon su tedd fii ci barab bu tedd bii woote ko wooteel ko kenn muy sëriñam di Thierno Mouhamadou Bachirou Tall kon Thierno Hamidou ñu ngi koy nuyu bu baax tabarakallahu ñu ngi koy ziar ñu ngi koy ñaanal yàlla naal yi mu naal ci diine lislaam naal ko ci tariqa cheikh naal ko ci kër maamam soppeem cheikh alxaaji omar al fuuti radiallahu taala anhu naal ko itam ci digganteem ak muy juram soppeem sëriñam Cerno Mouhamadul Bachir Taal yàlla na ko yàlla may mu àggale ko ak sago ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam noonu la ñuy nuyu kilifa yi fi teew yëpp suñu soppi suñu Cheikh Tidiane Tall mi ngi nii toog tubaarakallah di sëtu maam Cheikh Alhaji Omar moom it ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar di nuyu mboolem kilifa boo xam ni yaa ngi ronu tant bi ñu ngi di la ziyaar di la wàccee sa wàccuwaay ndax yonent bi moo waxoon ni anzilu naasa manazilahum nit ñi na ngeen leen wàccee seen wàccuwaay kon kenn ku nekk wàccuwaay bi nga am ñu ngi la koy jox ngir jëmmi yàlla ñu ngi la koy jox ngir jëmmi yonent bi waaye ñu ngi la koy jox ngir yàlla mi la jox wàccuwaay boobu te moom moo gën a xam wàccee jaamam wàccuwaay boobu kon kenn ku nekk ci jataay bi ñu ngi lay wàccee sa wàccuwaay waxtaan wi nag ñu ngi koy ubbee ki tax yàlla bind ñëpp muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yeneen ci boobu nga xam ni mooy lépp yàlla yàlla waxal la boppam ni man yàlla dama nekkoon ndàmb lu kenn xamul ma bëgg man yàlla ñu xam ma bi ma bëggee ñu xam ma ma feeñal ci sama leer leeru sayyidina Muhammad bi ma feeñalee ci sama leer لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لكل أمتي يا لمن من فأملي تلير سيد الوجود وعلم الشهود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كن يرنت بابو ونبيا فتشرح حجمالي وما خلق الرحمن شيئا لنفسه سوى سيد المحمود وهو حبيب شيخ الحاج يلي قدر درع بدر بولو جيح ندير بوبم من اللي يلي في النيل تفكر بين بكر لبكر من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يلي تبورنا خمي يلا تخ يلا تفشمهم الجارنتي wax naa ko démb yàlla dafa waxal jullit ñëpp ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam benn wax déglu xul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkum allah wa yaghfir lakum zunubakum wallahu ghafurun rahim yàlla dafa ne yonent bi waxal ma jullit ñi suñu bëggee ma bëgg leen suñu bëggee ma yërëm leen suñu bëggee xool leen bëtu yërmande bi nga xam ne ku ma ko xool dootuma la mbugal ku ma ko xool dootuma la sànni nan la sopp yow Seydina Muhammad mais buñ la buñ la soppee yow yonent bi alayhi salaatu wa salaam yàlla ne yonent bi boo ko soppee jëlaat nga ji ba lay a defal mooy loo ma defoon jéggal naa la قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تقبل ينتبه سوك تبير يعني أن يغفر لكم سنوبكم يعني أن مجد لن رتي رتي قل ينتبه سوبك يا خمويكا أننا موي بنتيا فأنت باب الله أي امرئ أتاه من غيرك لا يدخل ci yàlla bi dafa xool yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu xool may yi ko yàlla may xool fi yàlla teg yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak cër yi mu ko cërale ak la ak alaxira mu jekk ba yàgg mu ni ba neexul ba neexul fa anta yow sayyidina Muhammad baabullaahi yow yaay buntu yàlla. unité bi mooy buntu yàlla. mu ne ko comme yow yaay buntu yàlla nag ayumri in ayumri in ataahu min gayrika laa yadxul mu ne ko xoolal képp koo xam ne mi ngi jóg bi mu jógee mu ne ci yàlla la bëgg a dem te jaarul ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne kooku du àgg du àgg ci yàlla parce que lu tax du àgg ci yàlla mooy jaarul ci bunt bi nga xam ni mooy bunt bi mu war a jaar. pour àgg ci yàlla te mooy Seydina Muhammad moo tax Cheikh Al Hadj Malick yàlla ko yàlla fay mu ne gis nga yonent yi yàlla yónni dara taxul yàlla yónni leen pour wane ni rek Seydina Muhammad ngi ñëw wa xalqul axlaaqi baasul anbiya li zuhurihi muxaddimatun faalam wala tadami Cheikh Al Hadj Malick ne wa xalqul axlaaqi bind bi yàlla bind mbindee fii jëlal waaw di tegaat ca baasul anbiya wa baasul anbiya ak yónni gi yàlla yónni yonent yi yu commencé aadama ba yonent yàlla Isa 123 999 prophètes kenn rek lañ doon arrosé dikkam muy kan muy Seydina Muhammad كان رب من دم أنوسي تكم مايكل كتاح مامشي على حاج عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه تقول جهاتي نسوي الوقت لا إله إلا الله تلين تكتك سيدنا محمد رسول الله سوي الوقت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تلين تكتك وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله قوقوتا يعني يمسان 23 000 999 prophètes ay yonent pour lan pour ñu annoncer jikku sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax Alaaji Maalik di wax wa xalqul axlaaq ba'dul anbiyaa'i nuurihi muqaddimatun fa'lam wa laa tanami baal leen ma du mën a ñàkk sax waaw waaw du mën a ñàkk nañ leen baal ma tuuti rek Cheikh El Hadj Malick ni waxal kul ablaaq yi bind gi yàlla bind mbindeef yi wa baasul anbiya baasul anbiya ak yónni gi yàlla yónni yonent yi alaaji Maalik nee na loolu yëpp mu xattimatul benn avant premier la pour lan li zuhuri yi ngir feeñu Seydina Muhammad xoolal yonent bi yàlla mu si yónni Abdoulaye Bari soo déparé di dem yàlla daf lay woowaat nga ñëw mu ne la soo demoon di woote ba sëddi ko woote Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fekk la fa nooy def ak looy wax. mu ni ma jël sharia bi nga ma jox dugal ci biir sharia jël sama woote dugal ci biir wooteem nekk taalibeem yàlla ne la xam nga li tax ma yónni la demal yubashiru xawmuhu bi annaka taati xaatiman bi nubuwati fa kullu nabiyin jaa yonent bu mësul ñëw yàlla yónni la soo wootee balaa sa mission jeex li ngay ci wax ak sew nit mooy lan xam nga mooy lan man kat dafa am koo xam ni moom laa yoreeloon lenge yi kookoo taxoon may wax muy sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku bu ñëwee na ngeen ko gëm kooku bu ñëwee na ngeen ko wóor kon kooku moo yonent yàlla nag defal ñu ñun jullit ñi garanti ci sayyidina muhammad xam nga ban garanti lañ defaloon wa ma kaana allahu muazibuhum wa anta fihim wa ma kaana allahu muazibuhum wa hum yastaghfirun imam sàmm ngay yàlla dafa yónni sayyidina muhammad ci suñu biir bi mu yónnee yonent bi ci suñu biir ni yéen ñi nga xam ni yéenay xeetu yonent bi te xeetu yonent bi ma wax la tey dafa yaatu même yonent yu jiitu ya ak seen nit ñi gëmoon yonent ya teg seen ngëm-ngëm ga ci ngëm-ngëmu yonent ya te yonent yooyu gëmoon nañu Sayyidina Muhammad ñooñu ci xeetu yonent bi lañu bokk. yàlla ñu yéen xeetu yonent bi xam nga dama leen defal wa maa kaana Allaahu mu'azzibahum wa anta fiihim yàlla ne yonent bi xoolal xeet yu njëkk yi ku ma mos a tooñ mbugal naa waaye mu ne ko yow sa xeet yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu ma mënti def du tax ma wàccee ci seen mbugal ci seen kaw yow laa la leen gusee yow Seydina Muhammad wa maa kaana Allahu mu'azzibahum wa anta fiihim yàlla ni yonent bi sa jëmm ju tedd ji feeñ nañu ci seen biir du ma leen mbugal mel na yonent bi yàlla nee na yonent bi dafa ni yàlla yaa ma bind te xam naa ni yow rek yaa fi des damay dem te ñii bëgguma mu mbugal leen benn yoon su ma nekkee seen biir ak su ma nekkul seen biir mu ne ko wa maa kaana Allaahu mu'azzibahum wa hum yastaghfiruun mu ne ko soo leen wanee gannaaw fekk ñu ngi sax ci baatu astaghfirullah astaghfirullah duma leen mbugal moo tax yàlla nu yàlla fayal yonent xam nga lu tax nag yàlla nu yàlla fayal yonent astaghfirullah bi ñuy sàq mi ci tariqa sayidi cheikh ahmed tijani chérif sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo xool góor yàlla yëpp nit yàlla yëpp moo leen xool xool wali yëpp tànn ci benn wali muy ay muy ab sëtam سيدي الشيخ أحمد التجاني الشريف ويكتي طريقة التجاني تكي لها لذي خالا من ندوك سدار أنت وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أمر بن تجان أمر بن تجان وجاب طريقة تجان خيشوا تدو دفتيني أستغفر الله gontu moom te doo def téeméeri astaxfirullah te wax naa démb ci zaawiya ba yonent bi dafa ni astaxfirullah al azim allazi la ilaha illa huwa al hayyu al qayyum soo ko waxee juróomi yoon yow ab julli yonent bi nee na sa bàkkaar yi bu tolloon na duusu kii gi yàlla jéggal na la ko الشخص يعني بسبنة لو مقاطع كات وقت فان ويريو مو يومي وزي بين يوم باركس أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يرمتنا سوك وخي جرومي يوم يالا جيجل لنا مولين بكار بوتفون دونك سا بكاري مي تول ني بوسوكي خم نيو بونيس يوي Sayyiduna Muhammad moo ko négocier ak yàlla yi ngay dégg ñu naan la te mu wér ñu naan la soo ko waxee wala soo ko defee yàlla jéggal la sa bàkkaar yi yi nga yi nga amoon yëpp du wax duñ ko wax yow moo tax yàlla di la jéggal mais déedéet yonent bi moo ko négocier ak yàlla ba yàlla defal ko yonent bi ngir jëmmi Sayyiduna Muhammad xoolal rek ngeen noddu noddu nga ni tekk pour dégg pour pour wax la yàlla fi mu teg yonent bi ñuy noot ngay déglu kii noot muy noot di noot ba agsi ci ashhadu anna muhammadan rasulullah yonent bi ne nga ni raditu billahi rabban wa bil islami diina وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سيدنا محمد نه يعني جيكل لنا سباكاري دون تطول من الدوش جي يو نكو واخ ويمباخو يالا لا اكتشفير جمو ام تسيدنا محمد yonent bi nag sallallahu wa sallam comme yàlla nee ko mbugal sa xeet fekk yaa ngi seen biir soo fi jógee du leen mbugal sax ci baatu astaghfirullah moo tax toujours ma wax ko wasifa yi ñuy ci jàkk ak di ko def ci ak di ko def ci yu mel nii musiba boo xam dafa ci biir réew koy شيخ الحاج مالك بن لكو ان الوظيفه للخراء عازمه كذاك اقليمها في كل بلدان الحاج مالك دفن ما ني دانيو توغون جامونو يوي نيت ني بو ني واجي كين ادنا سكرات دي ميتي جامونو يوي تشيري دنديون كف الجود Cheikh Al Hadj Malick ñu leen di xamal leen su wasifa gi gën la loolee dana dem ba kenn dootul sukuraat la ngay ngelaw rek ba faatu. àgg nañ ca tey Al Hadj Malick ñu tax mu ni dee wasifa. dafay métti dafay woyofal métti tu dee xam nga kii waaj a dee tëdd rek di nelaw ñu naan ma ngay nelaw yeewuwul ma ngay nelaw yeewuwul kooku xam nga ni kuy nelaw yëgul métti ku yëg métti du nelaw alaaji baa ni inna alwazifata lil xuraay azimatun kadaaka ixlimuha fi kulli buldaani Cheikh Al Hadj Malick nee na dëkk bu ñuy wasifa wasifa mooy defal dëkk ba sécurité نخي شق جان جمل التاريخ بي نقول يا خيتي روحي استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم يعطي فمريو دابا بغي نقول لك فمريو بالوقت سبلتش في اي بكا باك لين كي تاخ يالا جوخ لين موي كان سيدنا محمد جوخ لين كو كوران لين كو مون ني جوخ سيدنا محمد كوران مون يالا جوندي نالين كو إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن كنت بن صلاة من صلاة بدل صلاة يب إن كنت بن من الفاتح لما أغلق من صلاة الفاتح لا إله إلا هو الحي القيوم صلى الله عليه Cheikh Al Hadj Malick nii bàkk leen yonent bi ci salaatul faatihi salaatul faatihi Alaaji Malick wax garanti yi nekk ci salaatul faatihi déggal ala marratin minha min annaari fidyatun wa mawtun ala al-islaami fi zaaka yusuf Alaaji Malick ne benn peru salaatul faatihi benn peru salaatul faatihi benn alaaji maa nee na soo ko jàngee benn peru salaatul faatihi te bi nga koy jàng nga fas ci sa xol mooy salaatu bi gën ci salaatu yi moom salaatul faatihi نفست تسقل نسرات بي من جدي تحبلة الغيب يلا تحكو كم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مجحكو ستن بكم سيد الشيخ أحمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه نجاه كبيرا وهي على مرة منها من النار في اليتم وموت على الإسلام في ذاك يوسف ونبالي برسالة الفاتحة نجاه نجاه dama koy waxtaane di ko firi waxu Cheikh Al Hadj Malick boobu benn góor ni ma doom sama am El Hadj Malick waxul ñu jàpp tarixa bi de ma ne ko ñu mu wax mu ni ma ku romboon ci mbedd wala nga doon dox gis benn këyit wuy naaw këyit bi bi muy naaw nga ne lii de mbindum ndeyjoor la xam naa ni alquran la nee na nga yëkkati ko fekk muy salaatul fatiha nga jàng ko benn yoon. ba nga ko yoon nga ormal kii bi wut foo ko teg soo yëgee soo yëgul garanti la la sooy jullit sooy dee yaa ngi ma salaatul faatihi li tax mu am doole ki ko yàlla wàccee ci moom looloo tax mu am doole muy kan sayyiduna Muhammad ak wali yi bi mu ko jox muy kan sayyidu Cheikh Ahmad Tijani Chérif radiyallahu taala moo tax tarixa la boo xam ne soo ko jàppee texe na tarixa tijaan soo ko jàppee ci di ko jëfandikoo texe na tarixa yëpp baax na ci yàlla yëpp am cër waaye tarixa tijaan soo ko jàppee ci di ko jëfandikoo texe na li Cerno Xaamidu di wax nee na bàyyi moo ko daan wax baaba nee na mu ni ko naam mu ni ko tarixa bi ku ko jàpp-jàpp dëgg ku ko bàyyi bàyyi dëgg tarixa tijaan ku ko jàpp jàpp dëkk ku ko bàyyi itam bàyyi dëkk waaye du ko mu neex nga jàpp ko alaaji maa ngi ne tarixa bi pour nit bu nekk ci nekk ab taalibi tijaan te sax ci te faatu ci ma ngay aju ca yàlla ca wa maa tashaauna ja illaa an yashaa allahu rabbul alamina moo tax mu way ko ni inna al wusula أخي في طريقتنا فبالمشيئة لا في الكد جزمان لا تشغل حد مني دكم نيك نيك تيجان دير يا لا ليسو يا لا ليسو مو بغي يو نيك تيجان مو ديف لا اب تيجان واي دكم نيك رك نيك تيجان غناو صلاه الفاتحه نتب لا اله الا الله خول تاني خبيل ني مو رافيت موتا سيني بابكار دا واخني تاريخ تيجان لي تخ مو نيك ما دوم جي دفو نورو ناي جي دي نغ واخ دومجي دفن نورو نغايجي نغايجي موي شريعة المحمدية موي تاريخ تيجان دفن نورو شريعة المحمدية يقولي تاريخ تيجان دومو كوت موي تاريخ بنا خمي دفع أن فقه التاريخ كل شريعة بأمي فقه لولو تاريخ تيجان رك موقع تمولم تاريخ أم أي نعرف إشارة بلا نجي دوغني ماي لكو بلا من يجي دين الإسلام ده يجن تقل تكن متوبا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تاريخ ببلا من يجا من يسوق تكن وشر محمد البشير تاع مو أخلا شاتي نعمو مو مو مو مجانا لم يجانا مايلا طريقة بي جان آية بجاينت اليوم كل صحابة جاينت ولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نخ جاينت بو صحابة جاينت و جاينت بوبو غزلمت يا الله محمد رفعت لسيد الشيخ أحمد التجان شريف تأي تاليبهم مطلق دي آية بطالة الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكس فإنما ينكس على نفسه ومن أوفى بما أعطى الله عليه فسنوته أذرا عزيما ما هي الطريقة؟ نقوم على سوق بارك التابع بموي بانبار لا إله إلا الله تزور موقف لا إله إلا الله بين نيان ديغل تي طريقة بي يمي لكو لكو يرد بكو لك نانا قول طريقة دي دي وقت لا إله إلا الله فلا إله إلا الله بيغا أم بيغا مو أبو دولي فدنا رواح كما قتل ينتي على محمد صلى الله عليه وسلم دفتو بير نيغم جاك بايا بركم جي تيب دي فاك كفر سيدنا علي ابن ابي طالب كما لا وشاء ليرنتي بدما بقول nga xamal ma loo xam ne su ma ko waxee kii naa ji dox sama digganteeg sama borom lépp ay day yonent bi ne ko kenn nekkul ci néeg mu ne ko déedéet yonent bi ne ko tëjal ñoom ñaar kese ci biir néeg bi yonent bi ne ko jëlal sa nopp taf sama gémmiñ Seydina Ali jël noppam bu tedd ba taf ci gémmiñu ku tedd ka muy Seydina Muhammad صلى الله عليه وسلم ولكو كمل سيدنا علي قم ينتبه وقت لا اله الا الله ومن نتيهم سيدنا علي وحده سيدنا علي وحده نتيهم لا اله الا الله يعني كي لا يدخل سبت ينتبه سنقول يبدا تينتبه بني وهو ما كانوا لندر وقت قولوا لا اله الا الله تفلحوا قال لك من ديدل دفع الصلاه léegi dañuy jox la kalimatu musharraf mooy laa ilaha illallah gannaaw laa ilaha illallah nga teg ci lan jawharatul kamal fukki yoon ak ñaar gar boobu nga xam ni cheikhna cheikh alhaj Malick si radiallahu la juróom-ñaar yi mu ñëw fekk la fa bu dee place bu bu dee place bu yéen yàlla yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñu ne alaaj Maalik bi lan mu ne wax xaadirun nabiyuna wal xulafa ma sahbihi fi kulli yawmin xalwafa tarixa boobu nag la maamu Cerno Mouhamadul Bachiru Taal di xool ba yàgg mu wax sayiduna Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam dama bëggoon a tariqa moom Cheikh Al Hadj Omar dama bëggoon a wut tariqa tariqa boo xam ne dama koy wut pour lan pour gindi ci jaamu yàlla yi ci diine l'islam pour gindi ci jaamu yàlla yi seen diggante ak seen borom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni ko boo ko defee di nga am mbooloo. صلى الله عليه وسلم واحد أم قارنت طريقة يمدون مدن قارنت قارنت لك كله بقل تيوي الشيخ الحاج عمر رضي الله تعالى عنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنت تنلنا بلنك طريق يوي يمنت بين الشيخ الحاج عمر تنلنا الطريق سيد الشيخ أحمد التجان الشيخ رضي الله تعالى عنه كنت تنلنا du tariqa ceexaan xoolal Cheikh Al Hadj Omar radiyallahu taala anhu koo xam ni balaa muy am juróom-ñetti at wala ci juróom-ñetti atam fekk na mu mokkal alquraanul karim Cheikh Al Hadj Omar juróom-ñetti at fekk na yow alquraan nga mokkal ko Baqara ba Naas waaye bi nga mokkalee mokkal naa si yemoo ci mokkal bi déedéet da nga ko mokkal ba pare jàngiwaat lii rafetal njàngum alquran ñu naan ko ilmu tajwid kan moo ko ko jàngal magam moo ko ko jàngal bi mu jàngee ilmu tajwid moom Cheikh El Hadj Oumar taxul mu toog mu commencé wut service jàng xam-xam parce que xam na ni doomu soxna pour nga nekk doomu soxna faw nga am xam-xam mu daal di jóg fu mu déggee ci bi bu am xam-xam moom Cheikh Al Hadj Omar dem na fa pour seeti te fekk booba yàlla may na ko ñu ko may ndax kenn ku nekk xam na ni Cheikh Al Hadj Omar radiallahu taala anhu cëram cëru Cheikh Al Hadj Omar daf ko gane waale jamono toujours damay wax nit su fekkee cër bi dafa maasee yow cër la waaye baax na su fekkee cër bi daf la dab cër la waaye baax na waaye cër bi gën a baax mooy cër bi nga xam ne dafa mag borom te Cheikh Al Hadj Omar cëram moo ko mag balaa muy gane jamono li ma waxoon sànq ci Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam شيخ الحاج عمر بلا ما يتم جرنا أنا ولي يلا خمل جم شيخ الحاج عمر أنا ولي يلا خمل تك الشيخ شيخ الحاج عمر ولا دني جمعنا جمع حلا جبا بكني أقول جمع ولي دان جو دك أدك دينو حلا دي دك دي غير لان لير جفي ورا تفين يقول جمع شيخ الحاج عمر leer gi war a feeñ te feeñagul te mooy Cheikh Al Hadj Omar radiyallahu taala ba tax keroog bi mu feeñee moom Cheikh Al Hadj Omar radiyallahu taala feeñ feeñi ñoom bu yéeme ga gane jamono na mu gane jamono na mu yéemee moom Cheikh Al Hadj Omar xoolal liir boo xam ni balaa fajar ngeen baal na ci baatu liir koo xam ne balaa fajar nga gane jamono balaa fajar balaa salaatu xayru mina nawm ñu ni weeru koor wi feeñ na ndax ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru barax la tombe bisu àllarba ci la maamu Cerno Mouhamadou Bachirou Tall mu tedd bi gane jamono bi ñu xëyee bi ñu xëyee ñu um koor ñu commencé um koor ko cheikh ahmadou radiallahu taala anu mboolem weeru koor googu yëpp jëfandikoowul weeru wuy juróom wu jigéen di maam aadama lu tax ngir ormal koor gi cheikh ahmadou ne lam yardaci nahara fisa lchahri wa umruhu izaka duna lchahri lam yardaci nahara من لم يبدع منها من الشيخ الحجومة مسلم قتت في الشهر تويرو تدوو تويرو قوت شبه حامد مينا وعمره إزاك دون الشيء مينا بمي باين ميني قتت تويرو قوت مينا بوبا أكم مومان شيخ الحجومة مطا أي أي بيسم مطا قلوية أما قلوية تشبه ci dara la wax dundam Cheikh Al dafa wax dundam Cheikh Al dafa wax jaar-jaaram te dundam ak jaar-jaaram moom Cheikh Al Hadj Omar xoolal ni mu ko woon virgule la wax virgule virgule virgule sëriñam mas na toog taalibe yi di leen jàngal ba yàgg mu ne ah maa ngi leen di xamal leen de taalibe yi wër ko sëriñam ay wax de ku jugeen sukk jur sooy boo nga waaj bis dana ñëw ñu teg la ci kaw jaat jàppoo la yóbbu la ba ay armel ñu jeen ci la te boobu Cheikh Al Hadj Omar nekk tuut tànk ngeen baal ma ci wax ji at yi bareegul mu ngi pëkk pëkk sëriñ bi sëriñ bi xool ko mu ni ko ilaa anna ba mu des man Cheikh Al Hadj Omar kenn du teg ci jaar gis jaar nii ni jaar ji Cheikh Al Hadj Omar ko jenc guddi na wala naaj ci sama ni ko sama dund dund lay koo ni ñëppay dee xam naa damay dee ko ñëpp waaye kenn dégg ñu Cheikh Alhaji Umar dégg ñu ñuy tëdd jaamu yàlla yu bëri daañu gis seen bàmmeel ñu seen bàmmeel yi nii waaye bàmmeelu Cheikh Alhaji kenn ko gis Umar radiyallahu taala anhu عالم كل فن الحمد لله عالم كل فن موي كو خامي فن خام خام دوكو لا فك نكو ميتريزي ميتريزي وحنا على جمل بو في خام خام سام موي ايجيبت مصر قاهره فلا شيخ الحاج عمر بن جمل لين في خام خام فلا شيخ الحاج عمر بن jommal leen ci xam-xam ba ñuy ci dëkk ba na nga fekk waa dëkk ba bind benn tëble la leen bind ci tëble dañuy dëkk bi ku fi dugg di nga wala nga laaj lu la ma mag ñi ni mu ne leen ah si waa Cheikh Al Hadj Omar al Fouti radiyallahu taala man moom du ma fi laaj waaye du ma fi laaj dara moom Cheikh Al Hadj mu dugg xoola misra toogam ñoom suba laa suba tisbaar tisbaar ba takkusaan ñuy laaj Cheikh El Hadj Omar Cheikh di tontu ñu koy laaj muy tontu ñu koy laaj muy tontu ba yàgg ñu ni ko xanaa ku mel ni sa baay amul ci dëkk ba nga jóge ni sama baay bu baax la de waaye ku ni sama ndey moo fa barewul loolu jigéen ñi bàyyi leen ci xel. لين في باي خل ما يخمني دوم دي ليجي يلنت ناي دي ليجي يل دوم ليجي بو خمني بتي تال تال بو خمني دوم فاي بيا ما خيانة دوت فاي بيا ما خيانة وده جيل بنا نعرفك بس بورم كير نعك سسان جيل بنا كلا نعرفك بس بورم كير نعك سسان na nga fexe ba jël sa borom kër teg ko foo xam ni tegoo fa kenn ndax jigéen kilifaam mooy waajuram soo génnee si néegu waajur nag ñu jox la borom kër nga dem ci sa borom kër léegi sa borom kër mooy sa kilifa sa borom kër mooy sa waajur sa borom kër mooy sa sëriñ sa borom kër mooy sa lépp loolu tax yeneen ci bi waxoon jigéen àjjanaama ngi muy jege ba dee ñu ne ko nu mu jegee mu ngi si jullee juróom julli juróom woor weeru koor génnee azaka topp ndigalu borom këram ca la neex yàlla mu ne kooku su deewee yàlla da koy ubbil juróom-ñetti buntu aljana di ko seetal fa la neex nga jaar dugg dem aljana yàlla ko yàlla defal suñu jigéen ak bépp jigéen ci àdduna bi tey jullit ak jigéen boobu tàntu safinatu saada bi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam الشيخ الحاج عمر رضي الله تعالى عنه fii la jaar ci xam-xam moom Cheikh Al Hadj Omar gannaaw gi nag mu dellu si fii ci réew mi di Sénégal gannaaw ba mu dajeeg Cheikh Chérif Mouhamadul Ghali jëflanteeg moom li mu jëflante dellu siwaat fii ci Sénégal indi fi loo xam ni bu dul moom lu bare la Al Hadj Omar ak a taxawu diine bi mu taxawu diine l'islam أبني متغي وانتانكا في شريعة المحمدية من شغل حجم أبي أبوكم يمين تبي صلى الله عليه وسلم فلا من شغل حجم رجع ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها فلا من شغل حجم رجع في شريعة سمت جهاد jihaad comme ni yonent bi daan jihaate loo taabe lay njëkk a def mooy naxante ak waa dëkk naxanteeg ñoom waar leen seen digganteeg seen borom wax leen yàlla suñu nangoo mu tuubal leen dugal dugal leen ci diini lislaam suñu nangu woon ak mu xeex ñoom mag ñi ne daan na ubbi dëkk lu baax mag ñi ne ne Cheikh Al Hadj Omar dëkk xeex ak ñoom ci lislaam bu faratee wasifaam jotee moom mu lal balaa mu wasifa ñi muy jàngal lislaam te seen lislaam mokkagul ñëw fekk ko ci mbalaanu wasifa bi bu paree am ñu ñëw ni ko dañoo bëggoon nga may ñu tarixa tijaan mu ni tee ngeen xaar ba lislaam dara tax déggoo ma de ah ma ni kii bu ko neexoon def réew mi yëpp ay tijaan waaye li ko intéressé woon mooy def réew mi ay jullit loolu ko intéressé def réew mi ay jullit bëgg nit ñi nekk ay jullit loolu moo ko intéressé woon dëgg-dëgg Cheikh Al Hadj Omar li mu doon dox dëgg-dëgg ak di ci xeex dëgg-dëgg pour lan pour l'islam am doole Cheikh Al Hadj Omar bi muy xeex booba am na xam-xam bankal sa benn baaraam am na daraja bankal sa ñaari baaraam am na wilaaya bankal sa beneen baaraam am na alal am na alal di ko yàlla joxoon ci alal këram bar bis Cheikh Al Hadj Omar daanaka lu ëpp juróomi téeméeri ndax yoo xam ne nit ñi dañ ciy sukk di te xam nga ne ñàkkul ah yi waroon tax bu tëdd yëpp toog daje na ci bopp daje na ci Cheikh Al Hadj Omar dama ni Cheikh Al Hadj Omar bi muy sàpp ci xaj booba xam-xam moo feeñoo ku dem jommal waa Égypte waa Sénégal taxul wax ci xam-xam. Cheikh El Hadj Omar Kott dong moo daan toog ci réew mi yaram wi tàng mu ni ñetti téeméeri charia ak juróom benn fukk yi am suñ ko effacé woon benn bu nekk man Cheikh El Hadj Omar ma delloo ko fa mu nekkoon te duma xooy këyit amul ku ko mës a wax kenn rek ko waxaat gannaaw gi gannaaw Cheikh El Hadj Omar te ki ko wax Cheikh El Hadj Omar ko nàmpal ci weenam mooy kan Cheikh naa Seydil Hadji Malick Sy radiyallahu taala alaaji Maalik rek gannaaw Cheikh Alhaaji Umar alaaji Maalik a taxaw mag ñëpp ni suma ma ci gën a metti mooy ñetti téeméeri charia ak juróom-benn fukk yi ci sama ma ku ma ko waxanteel loolu rek moo ma metti ma ni gars yi xam du ma seen maa leen raw dafa mu dafa jël sëriñam mooy Cheikh Al Hadj Omar moom Seydi Hadj Malick waaye loolu li muy teg mooy man duma seen morom maa leen dal أتى الملاذ يا جلوت وأنت المستغاث أه. وأنت المستعان أه. وأنت الجهيز والزمر أه. يا صاحب يا منصور يا بدر يا شيخنا يا ولي الله يا عمر يا دلعة اليمن يا سعد الأمام أنامي ويا نور الزمان وسيف الله يا قمر جرجف دمرة ما تغنيو خلاص dëgg xasida bi mu doon way su ma juumal muxtaar bu mu wëddi moo ko way bu mu wëddi Abdullah dëgg pour ma la xool Cheikh El Hadj Omar xool lépp lu sëriñ di def wala mooy nawe ab fekk na Cheikh El Hadj Omar def na ko yàgg na waaye dafay def ba pare nag kii dañ ko tëj kaso biñ ko tëjee kaso war ko àtte ki way xasida bi war ko rey amatul pexe mu ne comme pexe jeex na naa def tawassul ci sama sëriñ muy Cheikh Al Hadj Oumar mais mu def tawassul ci sëriñam Cheikh Al Hadj Oumar al Fouti radiyallahu taala anhu tawassul li muy tekki mooy naa ñaan yàlla jaaral ko ci ki mu ni naa ñaan yàlla jaaral ko ci barke Cheikh Al Hadj Omar ndax xamna ni Cheikh Al Hadj Omar jaam la ko yàlla gërëm jaam bu yàlla gërëm loo laal ci mbiram yàlla gërëm la inna lillahi ibadan iza aradu arado yàlla dafa am jaam yoo xam ne dañ koo jaam di ko jaam di ko jaam di ko jaam ba yàlla may leen cër ci moom ñu ngeen lu ngeen ma defal leen lu ngeen nekkati ma fekk leen Cheikh Al Hadj Omar ca la bokk bi mu defee tabaski ci Cheikh Al Hadj Omar ñu ngi tëdd ci biir cellule am fi ñu ko tëj 6 heures du matin Cheikh Al Hadj Omar yegsi jëmm jë génne ko ci prison bi te kànnaar tijjeekuwul ko ci gineem départ ak bi gars yi ñëwee fekk waa bi dem ñu def alerte ci frontière yi xoola bu ñu dem laajte ko dañ naan six heures zéro minute la frontière yëpp la six heures zéro kon yàlla ma na ko moom Cheikh al hadji Omar way ñu yoyu tam ñu jox ndax lolu Cheikh al hadji Omar radiyallahu taala anhu nitu sharia Cheikh al hadji Omar nitu haqiqa Cheikh Al Hadj Omar nit la koo xam ne ku jubóog boromam la nit la koo xam ne mu defal ñëpp wala mu àndal ñëpp ñi jubóog seen borom la. Cheikh Al Hadj Omar radiyallahu xam-xamam da ngay delluwaat ci ay taalifam téere yi mu taalif. خول الرماح والشيخ الحاج عمر خول سفينة الساعة والشيخ الحاج عمر سفينة بوكو اللي سمي خمي كي امون تفل في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخلاقه بركي دم ماني دفن تيري يو خمي يونت بي دفكو غارانت ci téere mag yi من safina من ci la ما maa la حياتي وجاي تجوز المجد احمد وقتي وربي لكل فضل محمد الشيخ ولي هبه قبل ولادك جلمدي فوالله ما اظهرت منه باحمد سوى بعد بعد يعد في حياتي وجاي تبدي المد احمد الشهمري وقد يعرف محمدي ولي حبه قبل ميلادك جلمدي فوالله ما عذرت من حب احمد سوى باذ باذ تفسر حياته وهو في ذكري دواء لمن يخف لأسمعي وروح لمن يسكو وروح لمن يكتي صلاة بدت لمن يشق الفتي الكلاي إذا الدين لم يكن فلا كانت الدنيا سهوما من جريك ما يوما يا lan yàlla fay la kooku mooy Cheikh Al Hadj nag ak melokaan yi ñu wax ci moom mooy maamu ki ñu bëgg waxtaan mooy maamu ki ñu bëgg waxtaan kan lañ bëgg waxtaane Cerno Mouhamadou Bachirou Tall lu tax ñu koy waxtaane dafa nekk royukaayu royukaay boo xam ni ko roy ci moom am ngërëmal yàlla déglu yeneen ci bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ci xadis boo xam ne boo demee ci sunan abu daawud daan ko fa fekk xadis bii ma lay bëgg a wax abi hurayrata radiallahu taala anhu moo ko solo moo waxoon inna allaha yabasu li hadihi l ummati في كل مئة سنة من يجدد لها دينها يونس بن بنون صلى الله عليه وسلم téeméeri at yu nekk ci kaw suuf yàlla dana yónni yàlla dana feeñal koo xam ni moo koy beesalaatal diine ji yàlla dana feeñal koo ni kooku moo koy beesalaatal diineen ji lan moo tax beesalaat diine ji pour lan pour nit ñi xamaat suñu ñu war tegaat seen tànk seen digganteeg seen gor waaye kii beesal diine ji nag ni muy mel جيكو يا لالا بغي واخ جيرومي جيكو بو ديمي تي بروم تاي تو سلوكي لم يكن في الشيخ خمس فوائد والا فالدجال يقود للجهل لانه بوي سي لانه بوي كو خامني ملوكان يي دا فا نيك سي موم nee na soo wutul koo xam ni melokaan yii ma lay bëgg a dafa nekk ci moom nee na ki ngay wut daf lay ommate jëmale la ci réer ak alkande ñu ngi melokaan yi ban ak ban la mu ni basirun bi ahkaami shariati aarif sëriñ day jàng waay ah sëriñ day jàng yonent yàlla Muhammad xam ne ñeent fukki at yàlla dogaloon ca ezel ni da koy yabal ci mbindeefam yi waaye ñeent fukki at yëpp teewul yàlla dafa am lu mu jàngalewaat rek ci yonent bi dafa yónni jibril mu fekk ko ci xuncuma naan ko iqra ñu naan jibril moo jàngal sayyiduna muhammad booba suñu borom mi nga xam ne ñuy jàngal waaye kenn ku nekk xam nga ni yonent yàlla muhammad moo raw jibril ku nite xam nga ni sayyiduna muhammad صلى الله عليه وسلم مروا سيدنا جبريل لفير نبي خالد التفاسير القرآني كربي سيدنا جبريل نيوي جواتي سورة مريم بما أكسي بب مريم مرة جنتي بني كاف ها يا عين صار دفن التب خل سيدنا محمد سيدنا محمد خالكم مولك خامل مفين يا رجل نبضها خامل مفين moo tax borom xam si yaa ngi naan maa waaru ñu ne ko loo waaru mu ni mu ni mu ni élève boo xam ne mooy gàggan ci maître waaye ak loolu yëpp yàlla dafa am jàngale bu mu jàngale ci moom Thierno Hamid daf may faral di wax ba Maxtaar bari na ay aaye yi yàlla wàccee ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yeneen ci bi taxul ñun ñoo tax. yàlla dafa am lu ñuy jàngal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ñu nekk sëriñ dafay jàng rawatina wàllu sharia sëriñ dafay xam sharia moo tax mu ne basiirun bi ahkaami shariati ya aarifun mu ni ñaareel ba tamit bu dul yani boo xam ni ci wàllu tariqa te ilmul xaqi xaqiqa daf ko war a xam dafa war a xam cosaan yi muy ñaar mu ni ñetteel bi tamit yu baa yu baa yu baatiru lil waalidi bil bishri ne ni sëriñ taalibe yi buñ ko jëkkalee kanam gu leer gu bir yi dañu war a fekk mu am ko maanaam ñeme loo leen boppam ndax luñ ko bëgg a laaj laaj ko ko ci wàllu xam-xam ak wàllu diine loolu suñ Aliou Ngéye doon tagg Seydi Xaaji Maalik ida jinaa naxwahu wajadnaahu zahlan layyinan lam yusatti ñu ngi bu ñu ma saan ñëw ci Cheikh Al Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhu di jàng si nee na dañuy fekk Cheikh Al Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhu mu nekk nit ku jàppale nit ku jàppandi léegi ñoom sëriñ day nekk koo ne dafay dimbali ay taalibe dafay di dimbali day ay taalibe mais li Thierno Mouhamadou Bachir mu ni sëriñ tamit dafa nekk koo xam ne même néew doole yi miskin yi daf leen di ñemeloo boppam لا تكون حاملين كل زمان أتى يختار خالقنا في خلقه سيدا يهدي به البشر بشيرنا آه. وارث خلقه سيدا يهدي به البشر لو جن حامد موكو وخ سيرين جن حامد موكو وخ بايم جن حامد موكو وخ سوبين جن حامد موكو وخ كي خامو في موكو تك تبو فكان موي كان جن محمد البشير تا ولا غيرو نمبر كي لا جاكرو dégg nga li mbër ki la jàggi ruur ku tax wala day wax ne ku tax nga gën koo warul gën kooku da nga war a teg foo tegul kenn ku tax nga gën koo warul gën kooku da nga teg da ko war a teg foo tegul kenn motax tax Thierno tek teg Thierno bashir Bachir fu mu tegul kenn ni kullu zamanin ata yaxtaaru xaalixunaa fi khalqihi sayyidan yahdi bihi bashir Thierno Hamidou ne kullu zamanin bépp jamo ata jamono boo xamni ne dikk dana tan ni ko kuy tan ni ne yàlla mi nga xam ne mooy aji bindu si yàlla mi nga xam ne mooy aji bindu si nga xam ni yàlla boobu lahul xiyaratu yàllaay tànn mu ni yàlla moom dana tànn fu muy tànn fi xalqihi ci mbindeefam yi ñu ni Thierno Hamidou lu muy tànn mu ni sayyidan ab sang sang boobu الشر يهدي به البشر يهدي به الجبر يهدي به الكنديكو يهدي به خمايا الله يهدي دنا الصبيان الجبي به تسلم بابو البشر من ديف جمع حامد بن بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا شيخا به أمة الإسلام ni Bouchra mbégte Bouchra mbégte lanaa ñeel nañu Bouchra tuuf Bouchra ngañaay lanaa ñeel nañu ñu ni ko ñun mu ni maasar ixwaan yi ñun mbokk julli ñëpp am nañu inna lanaa ba ñu yàlla defalee cheikhan sëriñ boo xam ni bii ci sëriñ boobu ummatul islaami moo leen xeetu lislaam tasdahiru Thierno Bachir ñëpp koy jiital ñu ni teg ñu wax ma kullu zamani wax ma Bouchra waaye xamaguñu ki ngay wax mooy kan mu ni Bachiru bun Muntaxa Bachiru bun Muntaxa mu ni nuuru yudaa'u bihi fi kulli naaxiyatin wal fadlu yantashir Thierno Hamidou nee na ki may wax mooy Bachir Thierno Bachirou Tall bul Muntaxa nee na soo ko xamul buy juróom mu góor mu tedd mu sell ba ma nga tudd Muntaxa buy mu góor mu sell boobu buy juróom ba ma nga tudd Taaxa buy juróom boobu nag mooy sëriñu sëriñ di kan Cheikh Al Hadj Omar radiyallahu taala anhu ba tax muy Bachirou bul Muntaxa ki may wax Bachirou la. day doomu muntaxa mu ñu kooku soo ko xamul nuuru leer na boo xam ni di daaku bii leer na bu ñuy leerloo Thierno Bachir mu ne leer na bu ñuy leerloo fii kulli naaxiyatin ci gox yëpp mu ne wal fadlu ngëneelu Thierno Bachir wal fadlu ngëneel li yàlla defal Thierno Bachir mu ne yëntu sunu nee na Bachiru ngëneelam loolu yëntu sunu dafa tasaaroo ñu ne ko ki ngay wax mooy kan mu ne xalifatul Moustapha muxtaari summa abil abbaasi wal xaali wal faaruuxi muntaziru Thierno Hamidou ne ki muy bëgg a wax mooy kan nee na xalifatul Moustapha nee na kooku moo wuutu Sayyidina Muhammad mooy xalifa yéen ci yàlla Muhammad xalifatul Mustafa mooy xalifa Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na dañ ko laaj lu tax mu ne fi yonent bi tegoon tànkam fale Thierno Bachirou teg tànk bi yonent bi mën na koo gën a guddule yonent bi mën na koo gën a yaatule waaye bu teggee mu teg. yeneen ci bi la doon mission mooy jàngale yeneen ci bi la doon mission mooy dimbalee yeneen ci bi lu tax yàlla yónni woon ko mooy xamal nit ñi kan mooy seen borom xamal leen kan mooy diini lislaam ba tax mu ne xalifatul Mustafa mooy xalifa yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ni ko ak kan mu ne suma abil abbas mooy xalifa سيدنا الشيخ احمد التجاري الشريف رضي الله تعالى عنه دا نكون لك كغا دون لامو أمرك غير غاي الشيخ الحاج عمر رضي الله تعالى عنه الشيخ محمد الغالي دكار لو مو تو سيدي الشيخ احمد التجاري الشريف رضي الله تعالى عنه نانا يوم كنت من خلفائه يا من مقدميه كون سكو تشيرن بشير دوني كون تشيرن بشير خليفه من خلفاء سيدي الشيخ احمد التيجاني الشريف رضي الله تعالى عنه وتعمل اسمه ابي العباس والخليفه سيدنا الشيخ والغالي نانا شان محمد البشير مين؟ والخليفه الشيخ محمد الغالي الشيخ نعم، محمد الغالي بميدم كموتن شيخ الحاج عمر رضي الله تعالى عنه من يقول فاروق mooy xalifa kan cheikh alhaja radiallahu taala anhu wa ardaahu wa nabihi amin ceerno haamidu ni saidum bunnuuru walmakamiyu ما خفيا بشيرنا وارث عن جده وعمر دفع لي سيرين داني يكسي tariqa cheikh defal ko Mawlana Cheikh Al Hadj Omar defal ko Thierno Mouhamadou Bachir Tall xalifa maam Cheikh Al Hadj Omar na ñëpp jóg taxaw bu mu dugg incha allah ñu sargale ko lool. Bachir رو رو انا

kutabala neno kutabala absirin day tabe waay mu ni kutabala xelmum mu ni Thierno Bachir dafa lerat وجود من شر البشير لفتوه وإحسان لمفتخر كيف كو خامني داغا نياك ولا دا فام لو اداو مو خام سي ديغنتك سا بوروم لا مو خام والو ادنا لا سو نيوي داغا فك نجاك بو مات سك ci kanamu Thierno Mouhamadul Bachir mu jëflante ko ak yow waaye ci Thierno Hamidou ne Thierno Mouhamadul Bachir foo ko fekk bu toogee xaddu abu saari xaddu abu saari dafay damm ay gëtëm moom Thierno Mouhamadul Bachir Thierno Hamidou ne Thierno Mouhamadul Bachir yuusulul arxam ينفقها يؤمن اليتامى ومسكينا فلا يزر جمع عالمي كما يوح موجه محمد البشير يسر الأرحام دفع جوكو أبوك يسر الأرحام دفع جوكو أبوك والأموال لكي يالي دينك ينفقها دفع كي ديبان سوا تشوانو يالي يعني؟ بمجيختك yëpp li yataama Cerno Hamidou ne soo bëggee gi sëriñ boo xam ne mooy tàpp jirim yi yëpp wii mooy tàpp al yataama jirim yi wa miskiinam ak ñi ñàkk fala yasur du leen bàyyi Cerno Hamidou ne Cerno Mouhamadou Bachir boo ko gisee muy dox wala nga gis ko mu toog kenn rek la lay fàttali muy xaatim mu tabe ba ba in raayta بشيرا في محاسنه تظنه حتما أوابه كرم وصوك كانوا بشير دفلني واي جنة وإن رأيت بشيرا لأن أي سوق سيجرنا محمد البشير كان في محاسنه ca kaaram la ca njëkkam li muy def te zunnuhu xaatiman dangay jox ni kii xaatim la xaatim dafa tabe woon lool ma ne ma lool te zunnuhu xaatiman aw waabilal matar xaatim ku tabe woon ku mënul may dafa am benn waay nekk ab lafañ mooy ku amul ay tànk di raam dégg xaatim dafa tabe te moom day day raam mu ñëw ba kër xaatim nuyonteeg moom fekk xaatim ci ëtt bi mu ne ko damay yàtt xaatim mu ko man maay xaatim lu doon sa soxla mu ne ko man de gis te ba bëggoon ku tala ma lay yalwaan pour nga sarax moo xam ne dama koy war di dem di yalwaane ak di joxe samay xaatim woo benn jaamam jaam bi nag dafa nay jaam bi dafa nay du joxe waaye ab bu dee dafa tabe nga nekk ak moom nay am problème parce que buy joxe yow taalibe bi da ngay te moom da ngay gëm te tout le moom day joxe da ceeb la xaalis bi soo nekkee moom fekk da nga nay da problème. ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم حاجة من تعلم من فرنه بكنيك xaatim woo bëkk néeg bi mu ñëw mu ko kii day yelloon am mbaam demal ci ginnaaw nga tekki mbaam mi jox ko ko sarax naa ko ngir jëmmi yàlla waa ji dem laaxati ci ginnaaw gis na mbaam mi de mu dellu si waat daal ne xaatim mbaam ma dafa fori dem na ci àll ba nekku fi pour xaatim ni waa mbaam mi laa la bëggoon may mais mbaam mi dem xaatim ni ko kon demal ci wudd wi nga yeewi fasu naaru góor wi nga jox ko waa ñu delluwaat ci gannaaw ñëw ni ko heureusement mbaam mi far na fee dañu ko booleel fasu naaru góor yi ak mbaam mi ak yow mi nekkoon sama jaam yéen ñetti ñëpp jox naa leen ko ngir jëm yàlla Cerno Bachir nag eh, Cerno Xaamidu fi mahazinihi tazunnahu xaakiman aw waabilan nee na xaakim moom ni mu mënoon joxe ak ni mu tabee woon nee na noonu la suñu sëriñ bii sama baay bii sama soppi bi noonu la tabee ñaata nit lay yóbbu mag par at Thierno Mouhamadou Bachir ñaata lay ngénteel ñaata lay dëjël ñaata lay fajal ñaata lay faral seeni rangoon moo tax mu ne wa in raayta Cerno ay wax wa in raayta bashira soo gisee Cerno Mouhamadul bashir fi maxaasinihi ca njëkk ya muy def ak taaram te zunuhu xaatima da nga yaakaar ni kii xaatim moo dellu si waat aw waabilal matari wala waame buy ni ci kaw asamaan Cerno bashir moomu nag moom la Thierno Hamidou waxoon ni tey nañ ko waxtaan lu tax ñu koy waxtaan mooy jikko yi mu wax sànq ci moom nit su fekkee dafa mën a muñ nit su fekkee dafa xajoo nit su fekkee ni lépp luy rafet soo demee wala luy rafetal da nga ko fa fekk kooku roy waaye ndax loolu rek moo taxoon yàlla ni ngeen roy yonent bi daxat kaana lakum fi rasulillahi xuswatun xasana لمن كان يرجو لقاء لمن كان يرجو لقاء ربه لمن كان يرجو لقاء الله يرجو الله واليوم الاخر كل كوكتي مولد المختار في ميتين نكون انا يلا يلا يلا ما يكون تشرم بشير يلا كنت فانا نور الاي تشرم ويا بيني وسط دومم جي يا بكو في فك yàgg ñu fee fekk ci barke Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi bëgg ci ñëpp nag di kontaan ci ñëpp ndax kii bu wootee ñëppay ñëw Thierno Hamidou du tax du tànkam lu kenn nag déedéet mooy sëriñ boo xam ni fu muy dem bu demee rek ñë ña ko woo xam ni yegg see ndax bu yegg see moom li muy njëkk wax li muy njëkk def mooy làmb poosam dimbali leen ci wàllu at soogaan leen di ñaanal ci bi yàlla loolu yàlla na sax baal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi bëgg ñu ngi kontaan ci ñëpp ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala daje bi yàlla bu mu nekk suñu mujj daje ñu ngi kontaan ci ñëpp ci wuy si bi ngeen di wuy si taaral ngeen suñu jotaay waaye fii képp ku fi ñëw insha allahu rabbi aajo boo fi indi yàlla dana ko faj ci barke Mawlana Cheikh Al Hadj radiyallahu taala كبارك مولانا جون محمد البشير أيده الله ونصره بارك دوم دي تدجي أكبارك كل في تدجي في توب اليا نجي دوم صغني في نقيا تبارك الله دلين زيار دلين بال حق دلين بال دلين الله سبحانه وتعالى مبولي جدا وما ذلك على الله بعزيز والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ngeen baal ma tuuti rek suñu téere bi ma yëkkati nii téere bi moo tudd al miskul adfar fi charx nazmi al muxtasar عن شيرة الشيخ الحاج عمر رضي الله عنه وأرضاه وعنا به آمين للمؤلف الشيخ حامد بن عثمان بان ميتو moo taalif téere bi téere bi nag mi ngi tudd al miskul asfar al miskul asfar misk xam ngeen ni mooy gët parfum bi dàq ci parfum al miskul asfar asfar mooy parfum boo xam ne day bon ni xeeñ mooy téere bi téere bi nag Thierno Hamidou moo ko bind yax bi ba pare delluwaat sarxaa ko moom moom Thierno Hamidou lépp mu tënk ci dundu Maulana Cheikh Al Hadj Omar radiyallahu taala anhu la ca ab jaam mën a xam ndax Cheikh Al Hadj Omar mooy bu kenn dul xam yàlla rek moo ko xam waaye nag. ci yàlla may mu bind ko ci téere bii tàmbalee Omar gane woon jamono fa la tàmbalee def ci tukki yi def ci ay jaar-jaaram lu bëri moom téere bi téere bi nag incha rabbi gannaaw suñu programme bi bu jàllee ziar bi ba noppalu ba sa fii ni ñu toog waxtaan na ci suñu biir ba suñu sëriñ jaar fa mu daan jaar ndax lépp li muy def moom da ciy am ndigalu Thierno Mouhamadou Bachirou Tall xalifa maam Cheikh Al Hadj Omar fas yéene nañu dédicacé téere bii te su boobaa bëgg nañu invité jullit ñëpp wax leen place bañ koy defee ndax jot na sëkk ndegam weesuwul ñu xam kan mooy maam Cheikh Al Hadj Omar al Fouti kon nag. taalibeem so amee lu mu liggéey ci moom loolu war nañ ko tasaare. ba adduna bi yëpp xam ko waxuma ma Sénégal waxuma la Afrique waaye adduna bi yëpp ñoo war a xam kan mooy maam Cheikh Al Hadj Omar radiyallahu taala anhu am na ñoo xam ne du ñuy jullit mais ñoom ba léegi dañoo jàpp ni Cheikh Al Hadj Omar bu nitu ndax mission moom bi mu remplir te remplir ni mission yonent kon téere bi tudd al miskul esver insha allah daan ko dédicacé buñ ko waree def daan ko jàllale ci télévision yi daan ko jàllale ci safina nga xam ne suñu rajo la daan fexe ba ñëpp yëpp insha allah loolu rek laa doon wax julit ñi fi nekk ñëpp wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh